al dellu ci ginnaaw altine tey ji la ñu ko façon yéene delloo réewam Sénégal ni mu ko waxee eh, ci fu soxna si jiite wàllu ak ak yelleefu doomu aadama ci oni eh, daal dina ca taxaw di xaar nag ONU googee Union africaine ñu wut ci lu gaaw saafara ngir mbiri sénabre wàllu xibaar bokk na ci mbay mi ak tolluwaay di Sénégal di waanu Saloum njiw ma séddale gi sori nanu ci lool téeméer boo jël juróom-benn fukki ak juróom-benn séddale nañu ko dem jiw ak la muy àndal mbay moome syndicat jàppandoo def seetlu gi teg ca nag ne yeexte am na ca séddale googee gëstu tey bi ci lu yaatu policier rajo yi fi woon daañu leen dugalaat ci police bu Sénégal ak mbébét la gunu euh, xaatim ca conseil des ministre mu war a jaar assemblée nationale ministre intérieur jàppe ko euh, li nga xamante ni mooy ak jubbanti ñeel injustice euh, jamonoy parti socialiste ñoom alkaati yi mbir moomee soxal nag ñenn ñi rafetlu ko ña ca des gis ne daa yeex tàggat yaram malal junior Diagne ñàggat di ci wàllu caada Georges Déthié Diop en a El Hadj Ndiogou Diène yéene kaay ak El Hadj Ahmed Aïdara ci technique bi Abdoulaye Diop. RFM xibaaru suba. Assane Gueye. jërë ngeen jëf ci ànd RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Eliman Ndour corniche boobee la ñuy jël wutali ba Géejawaay ca wax ya foofee te fes ga defati jëya démb gune gu tolloon ci fukk ak benn ci at ma tax mbay la daa wuyoo lab ca géej ak Géejawaay Salif Sow. ñaari sapeur pompier yi doon seet Matar Mbay gisuñu ko. moom ba léegi kenn gisagul li nga xamante ni mooy gune gi lab gi moom fukki at ak benn la am mu ngi labee ci géej bu géejawaay dimanche bi ba juróomi waxtu ci ngoon jotee menuisier la woon mu ngi dëkkoon cité jinkoom benn quartier la bu xumb bu nekk ci géejawaay ñi nga xamante ni dañoo lab ci géej gi ba vacances yi dooree ak léegi toll nañu bu néewee ba néew ci juróom moonte géeju waaye gi dañu fiy aaye ñu fiy sangoo wante jamono jële tembe ak tàngaay bi saa su ne day bari nit ñi nga xamante ni ñooy surveiller géej yeeg ñuy woowee maître nageur nga xamante ni kuy lab dañu la war a sowe fi fa ñi nga xamante ni mooy waa mairie bi ci seen boor ñoom jëluñu benn dogal bu jëm ci aar li nga xamante ni mooy géeju géejawaay bi nga xamante ni dañ fa aaya sangu naam wante askan wi ñu ngay jalgati boobee ndigal ñi nga xamante ni mooy waa nguur geek waa mairie bi di seetaan jëye ji Salif Sow géejawaay rajo Futur Media. jërëjëf Salif Hissène Habré dootul dellu altine tey jii ca Tchad nguur ak Sénégal mi fësaloon dogal boobee tegaat na ko tegandi di xaa Union africaine ak yeneen ci lu gaaw euh, gannaaw càkkuteefu soxna si jiite commissariat euh, ONU ci wàllu ak ak yelleef doomu ci la kon nguur ak Sénégal doxalee nu ni mel Hissène day descendi Sénégal leeral yi ministre affaires étrangères maître Madické Niang ak sunuy naataangoo yu rajo télévision bu Sénégal. Sénégal mi ngay fàttali ni. moom su fi jugee nu mu gën a gaaw dana waxtaan ak waa Nations Unies waa Union africaine waxtaan aussi ak communauté internationale bi pour que nu mu gën a gaaw ñu wax mbir mi nan lay tëdde te mbir mi euh, il faut ñu wax nan lay tëddee ndax mi ngi fàttali ni dafa am dogal goo xam ni cour commune. de la CEDEAO moo ko jël dogal boobu dafa ni seen abré ay attekaayu Sénégal duñ ko mën atte cour de justice yi nekk Sénégal duñ ko mën atte wala boog mënu taxawal Sénégal loolu ñu tuddee juridiction te loolu nag Sénégal àndu si ndax moom li mu jëloon engagement moo doon atte Hissène Habré atte boo xam ni attekaayu Sénégal ak atekatu Sénégal yi moom ñoo koy def te loolu léegi mënatul nekk loolu tax àndul si loolu te aussi àndul si liñ nga ko wax ni que nañu taxawal lu bees nee na taxawal lu bees loolu nee na amul si fànn yu wóor ak fànn yu dëgg yoo xam ne moom lañ sukkandiku looloo tax mënul dugg si lu mel noonu li ma leen man euh, baamtuwaat mooy senegaal si ñaan goo xam ni si intervention boo xam ni euh, le haut commissaire des droits de l'homme def na ko nee na mi ngi taaxirlu si mbirum seen Habré kon ëllëg kenn dootu ko yóbbu si réewam incha allah ñu ngi déglu déglu bu gaaw Nations Unies ak Union africaine pour xam mbir mi fan lay mujj ministre Madické Niang avocat yu UGNAB nag ñoom ne naam dogal bu baax la waaye du tax ñu wàññiku ci yoon wanu jël ci wàllu kalaame geeg xeex bi jëm ci dogal boobe ndate jot nguurug Sénégal ak njiitu réewam deltu gannaaw abré ak i avocaam di ko rafetlu waaye ñoom avocat yi di xamle ni fa ñu ŋànkoon ba léegi bàyyi wuñu ko recours di maanaam kalaame yi ñu dugaloon ci cour suprême bu ndakaaru ak ci kuur bu CEDEAO day wéy ba léegi maître El Hadj di kenn ci avocat yi. recours yi ñu fi dem nañ CEDEAO dem nañ Cour suprême recours yi dañoo bëgg après am jàmm gouvernement bi xam ni après du ab jàmm du seen xar du seen objet boobu ñoo ko moom déedéet dañoo bëgg ñu may après jàmm kon recours yi day dem ba jeex. ñun dañuy dem ba jeex ndax Abdoulaye dafa sonn. mer ba futt ci këll këllee ji ak bundu yi ñu koy bundu xatal ki nekkoon jiitum réewu Tchad di xupp ak a joxar bi ay awokaam la a lu ni mel. après ni pare naa pour dee bési dee mooy dee ku ñëw pour jël ma dinaa la rey ku ñëw pour jël ma. ndax dañu ñëw pour jël bakkan ndax fañ ma yóbbu pour rey ma la kon may yëgal Sénégal yëpp di yëgal àddina bi yëpp ni kii Abdoulaye Wade la yebal pour mu jël sama dafa ñëw pour ñu rey ma ko danaa ko rey mu mu yokk ci ni Abdoulaye Wade ci boppam bu bëggee na ñëw comme mu dafa am doole ci moom dafa teg boppam yàlla bu yebal kenn na ñëw wadd bu ñëwee Abdoulaye rey ko ci këram ga mu nekk ci jamono ji nekk ca Almadi ñu ñuy xamal ni njiitu réewu Càdd moomu di Hissène Habré lu yàggul lool dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi avocat yi di ñu xamle ni ab conférence de presse lay waajal. jërëjëf ndate juróom-benn tegu ci juróom-ñetti waxtu ci. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. mbay meeg tolluwaay leeg campagne bi ñeel séddaleem njiw mi waa syndicat baykat yi di jàppandoor seetlu ci diwaanu Saloum ne sori nañ fa lool daanaka léegi ñu lal li yooyee bërëb ñu nuy séddale njiw moomee téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom-benn ci njiw ak la muy àndal doon teg tardé ngi ci séddale gi Ibrahima Benjamin Diagne. kuréel guy seddalee jiw yi léegi mu lal li Assane Ndiaye mi jiite woon ñi ñëwoon seetlu liggéey bi jàpp ñu ne li des bëriwul ci séddale bi ne su yéexee du seen coobare. waaye jafe-jafe yu am ñun ay béykat lañ. Euh, bu béykat boo xam ne bi da ngay bàyyi sa liggéey lu dem ci ñaari weeri yàlla pour joxe jiw joxe engrais. Euh, te dara naalu ci xëy na peut-être. Euh, yaakaar bi nit ñi am yaakaar yaakaar bi nit ñi am ci yow bu jiital la loolu nga loolu nga ci am. Fallou Diop mi jiite kuréelu ndaw baykat yi ñaawlu moom séddale bi ni mu yéexee tàmbali. gis nañ aussi ay manquement ci distribution semence bi manquement yi gis nañ ni constaté nañ ci ay retard ci mise en place des semences. lu weesu loolu nemmeeku nen si ay jafe-jafe ci nattu saaku yi. wala yenn jiwu yi desee baax njiitu syndicat bi ci douane bi di Ndeye Ndiaye di laaj gouvernement bi mu defar fi ay magasin ndax. mu gën fee ñoom ji ñàkk qualité yi comme ni ma la ko mën a waxee rek daanaka mën nañu wax ne yëpp la. parce que ji yi ñuy jël ah mooy jiw nga xam ne opérateurs yi ñoom ñoo ko jëlal seen bopp. su gënoon baax moo moom moo gën. magasin la ñuy ut dès mois de novembre décembre nga jënd este ko de ko traité ànd ak service technique yi agriculture. béykat yi nag neen suñu sañoon nguur gi jàppale leen euh, jënd seen gerte te benn opérateur du dox seen diggante Ibrahima Benjamin Diagne Kaolack RFM. RFM. kumpa tàggoog nag yéen. gëstu bi tey ñu jagleel wàllug policier radié yéenu kon toog la woon atum 1987 gannaaw si euh, ñu dugal leen ci police municipale ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci la ñu toll daañu leen dugalaat ci police bu Sénégal mbébét gi jibee ci ndajum conseil des ministres ne projet de loi war a jaar assemblée nationale xibaar la nag bu neex ci ñoom policiers municipaux yooyu euh, ñu toogloo woon atum 1987 tolloo ci ren ci ñaar fukk ak ñeent ci at El Hadj Ndiogou xaar bi yàgg na ñaar teg ñeent teg ci tam met na ci policiers municipaux yi ñoom ñooñu bokkoon ci lu ëpp junni ak ñeenti téeméeri policier yi nguuru parti socialiste dàqoon ci atum 1987 gannaaw ñaxtu ak grève bu ñu amaloon ci fukki fan ak ñett ak fukki fan ak ñeent ci weeru avril bu at boobu yooyu les policiers doon ñaawlu daan ñu teg ci yenn ci seen naataangoo yi ndaxte dañoo jàpp ne seen loxo dafa takk ci faatu kii di Baba Ndiaye bokk na ci policiers yooyu ñu dàqoon ñetti commissaire divisionnaire ak ñaari colonel ci atum nguur gi dafa taxawal corps bii di police municipale dugal leen ci nguur gi di jox ndimbal maire yi leen jël maire yooyu dogal ci 1996 di leen di fay waaye loolu yàggul dara ndaxte dañoo am ay jafe-jafe ci wàllu koppar tax ba nguur gi tàmbaliwaat di leen jox ndimbal gi woon. jëlaatu jëlaatuk policiers municipaux ci biir police dina yokk nit ñi ci police bi rax si dolli nguur gi dina xoolaat statut ak payooru policiers municipaux yi. lu ni mel tamit di jëmmal diggé bu leen jiitu mi digoon maître Abdoulaye Wade naqaru woon bu baax a baax liñ dàqoon. policiers municipaux yi jamono jooju nag mi ngi woon ci opposition bi mu diggee woon nag ne euh, bés bu faloo euh, di leen jëlaat ndaxte dafa gisoon ne dàq googu ñu leen koon tegul woon ci yoon. Alaaji Ndiogou Diène jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi Ousmane Ngom jàpp ne jubbante ak ñaawteef ak euh, li nga xamante ni mooy injustice bu parti socialiste defoon la ñu daal di rek saafara jubbanti ñoom nguur alternance ci jëlaatuk yooyee alkaati yu ñu ràjjee ci it ci wàllu avantage di nga ne nag nekkin ci liggéey bi daanu am yenn avantage yeeg seen i naataango yu police nationale. municipale maître moom Ngom du Mamadou Diop. police municipale ni ngeen ko déggee ci euh, télévision bi conseil des ministre adopté na loi bu bees projet de loi boo xam ni daf leen delloosi ci li ñu tuddee euh, police nationale. xam ngeen ni loolu euh, lu am solo ndax alkaati yëpp ñoo bokkoon am lu ñuy jooy. ndax 1987 euh, police bi yëpp la ñu rajee woon président Abdoulaye Wade ni loolu jaaduwul taxaw ci seen wet ni leen injustice la incha allah bu ma ñëwee dinaa fexe ba loolu dañ boobaak léegi def na ci jéego yu am solo gis ngeen ni taxawal na statut bu bees bu ñu tuddee statut policier yi statut bu leen jox avantage yu bare ba nga xam ni policier yi waxatuñu dara li ci desoon nag moo doon police euh, municipale police municipale ñoom it ni avantage yi nga xam ni jox nañu ko seen morom policier yi su leen seen sagoo ñu am ko ndax ñoo bokk li ñuy liggéey ñoo bokk li ñuy def mais bokkuñu ay solde bokk nu ay indemnité bokk nu avantage ah te fekkee ni da ngay def ak nit même liggéey normalement yéen a war a bokk loolu yëpp loolu moo taxoon nag loi bi ñëpp di ko xaar président nag jël na décision bi ñu ni loi bi conseil des ministre adopté na ko yaakaar nañu itam assemblée nationale dana ko adapté ba policiers municipaux yi ñëw duggaat ci famille bu mag bi nga xam ni moom lañ tuddee police nationale ministre d'État Ousmane Ngom mieux vaut tard que jamais la tubaab di wax maanaam mu yéex a gën mu bañ a am mukk ci àddina donte nag ak yéexte ngi ci boobee dogal ñeel alkaati yi ndax ñaar fukk ak ñeent ci at boobaak léegi lu ci fu ci ni njaareem ñenn ci yooyu alkaati yu nu xaj yi fukk ci la ñu ñu ngi xaar dogal bi ñu doxale ko ba ñu mën a kon daal di dund ak ngëneel ya muy àndal nepp statut yi Mouhamed Jo Diop delluwaat biñ leen delluwaat ci police nationale bi nekk na mesure boo xam ne policiers yi ñu dàqoon rafet nañ ko waaye nee nañ dafa xaw a yéex a ñëw ñu bari ci ci ñoom jamono ji soreetuñu retraite kenn ci ñoom di ñu xamal ne ñi ci gën a ndaw ci ñoom ñoo ngi nekk ci vingtième promotion bi te ñeenti wala juróomi at moo leen dese ñu dugg retraite ci Diourbel ñi nga xamee ne mesure bi laal na leen motuñu fukk ñu ci bari sax dugal nañ leen woon commissariat urbain bu Diourbel ay at a ngi nii ay at yu bari yoo xam ne policier rajo yi ñoo ngi doon dund jafe-jafe yu métti ay naqar ci seen xol bokk na ci ay retardu salaire yoo xam ne jamono ji li nga xamee ne mooy mbégteem gu gën a mag moom mooy fayeeku salaire am ni ko naataangoom yi defee fin du bu jotee rek mu jot salaire am tardement amatul benn yoon ci salaire bi nga xam ne dépendre tout léegi ci mairie bi noggatu bi ak xëjëg seen bi nga xamee ne seen supérieur yi ñangi leen ko doon def nekkoon na tamit mbir moo xam ne métti woon na leen lool la ay policiers yoo xam ne jamono ji joxaat nañ leen seen gëdd ñuy xaar nag léegi li nga xamee ne moom moo ciy ànd mooy statut yu yees ak avantage muy àndal Maître Diop Diourbel RFM ca tëngee ca policiers municipaux yi daal di rek euh, gàttandu boobee dogal ak mbégte waaye seen xel ak xol yëpp dellu ca ku tedd ki ku baax ko woon oyof lool ca mënoon diis euh, maam Abdou Aziz da baax lu ne def na ko guddeeg bëccëg ngir seenuk euh, mucc ak euh, ëllëg euh, seen xel ñoom yooyu policiers municipaux demit ci njaboot yi seen nattangoo yi nga xamante ni faf dogal bi fekku leen fii génn nañu àddina ci diggante bi Ousseynou Thiam. gannaaw ba ñu adopté ci conseil yu ministre projet de loi bi nga xam ne ni dafa jël dugalaat lii di policiers municipaux yi ci lii di police d'état bi loolu nag policiers municipaux yi nekk fii ci diwaanu Tëngéej rafet la nañu ko bu baax a baax ñooñu nga xam ne ni ay ati ata nag ñuy xaar boobu réintégration ñu ngi rafetlu kii di maam El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh ca dundam defoon na ko bu baax jëm ci wàllu dossier boobu ñu yaakaar nañ bii yoon di doon comme yi fi jaaroon depuis fukki at benn ñu ngi jël ba am nu ñuy demoon suñu mais nag mënu fàtte maam Abdou Aziz yàlla na leeram parce que def na lu nekk ñu jël parce que bañoon ba amuloon sax xaajale seen bañ ko waxee am ñu mu jël ni moom policier yëpp ñooy protéger amul ku ñu jël ñu ba ñu ngi autorité ñu bëri ñeen ñi gaañu nañ ñi kër yi tas nañ xale yi jàngatuñ ñi nga xam ne am ñu limaan bu mat wala seen seen xam nga métti na mu doon ay policiers municipaux di rafetlu lu mel ñaan ñi di autorité yi ñu jàppale seen famille naatangoo yi nga xam ne nii daanaka nekkatuñu ci àdduna wala sax àndatuñu ak seen i xel ca geneen wàll ngi ñaan ñi di policier d'état yi ñu nar a ci biir corps bi ñu yaatal leen ngir nag mën a yombal bu baax lu jëm ci seen réintégration boobu ki doon jokkoo génn fi ci tëngeej di Ousseynou Kiam ngir RFM. Ousseynou jërëjëf mu nekkoon xët bu yaatu ñu ubbi tey jagleel ko projet di mbébét jëm ci wàllu dugalaat euh, policier radié yewoon atum 1997 ci police bu Sénégal mbébét gi daal dinañ ko dalloo ci conseil des ministres alxamis junu génn mu des kon jaarale ko assemblée nationale woote ko nebloi. wàllu sport ak Malal Junior Diagne. maa ngi lay nuyu ngi lay fay bu baax. ok yaa ngi xatal ko ci micro bi de bisimilah. di door ak wàllu football demb gaynde Sénégal yi qualifié nañu ci wàllu Jeux africains ndax dañu gagné Guinée ci wàllu série de penalty yi dañoo dugal juróom Guinée dugal ñeent Guinée seen juróomeelu tiir Demba Camara moo ko jàpp góolu Sénégal bi ne ci Sochaux moo tax kon ba xale yi daal di dem ca Jeux Maputo ya loolu nag Ablaye Sarr di entraîneur bi am na njàngat lu mu ci def marché ba jeexee ci micro RFM. santaan ñëpp gërëm suñu borom moom mi ñu may ndam tey gërëm ñi ñu jàppale ñëpp waa li ñu mën a wax mooy. yàlla may na ñu ndam ñu ngi koy sant sant ñi ci jàpp ñëpp parce que buñ ñu bàyyi woon xëy na du ñu àgg fii mais li mu mën a wax rek foofu ñuy dem ci Mozambique dëkk bu ñuy wax Maputo dañ fay dem rek pour dooleel xale yi. ndax defe naa xaaj bu njëkk bi. Sénégal amul woon dara lu ko war lu dem dugal bii ndax dañ ñu dugaloon bii fële parce que ñu dugalul bii du ñu gañ loolu tax ñu yéeg ci kaw équipe bu gine bi te defe naa xaaj bu njëkk bi ba fanweeru minute Sénégal lañu gis ci kanam Guinée am na fa ñaar ñetti bal yoo xam ne rëcc na ko mais ku jëm ci kaw tamit di nga ubbi ci ginnaaw loolu du ci ñàkk mais xale yi aussi dabu nañ loolu ba sa safaan amul parce que équipe aussi noonu nga koy téye. dafa war a dëgër ci ginnaaw ci kanam aussi mu am ñu xarañ ñoo xam ne mën nañ jël bal bi def ko ci biir bi yàlla defee ñu am benn diggante boobu def naa dañuy dem mi-temps bi ñu demee mi ñu waxtaan ak ñoom ne kat Guinée ni mu doon fubalee du ko bàyyi ndax moom bu dugalee rek ba ñu yem moom mooy qualifié bon ñun ñoo war a dëgëraatal ginnaaw bi jéem nag seet mu ñu dugalee ñaar xam nga football boo xam ne ci kanam rek ngay jëm dafa metti ndax defar moo gën a metti yàq nee na defar moo gën a yomb yàq xale yi nag dinañu xam seen adversaire ëllëg ndax euh, ci la ñuy daal di def da nga xam mooy tirage bi ca Caire ci Égypte lañ koy amalee euh, Maputo bi nag ci weer septembre ji lay daal di am ñu daal dafa a gën a jafe yàq la Ablaye Sarr wax. moo gën a yomb waaye moo gën a jafe xam nga yàq moom daa gaaw. yàq toj toj rek tasaare toj tasaare gaaw na lool. defar moom di nga ci muñ di nga dégg lu ne. waaw léeg-léeg ñu ne baaxul nga kiiwaat rakiste. mu ngoog ñu daal di wéy ci wàllu football bi démb jegal nañu ñaar fukkeelu ak benn lu bis bi ci wàllu Ligue 1. Sigicoor Casa Sport dafa tëw ak équipe bii di Wakam kenn demut kenn dimut kenn dugul dara itam. Eh, tey ji la ñuy jeexal boobu leen ñaar fukkeel ak benneelu ci ay bis nag jogante yi ca Demba Diop jàpp nañu ko dug mi nekk ñaareel mooy dalal ak AS Douane ca Demba Diop Gorée ak Gia eh, ca Ngalandou Diouf eh, yaakaar mooy dalal jaraaf foofule ca Amadou Bari nag Guédiawaye mooy laale ak équipe bii di ñaari tali ñu jeexal ci wàllu bëre xam na finalu CLAF bi ci atum ren ji Malick Niang bu écurie Ndakaaru moom mooy laale Moussa Ndoye démb Malick Niang bu Ndakaar dafa ni tell kurpeñ Adama juuf mu daal di nërmeelu ba mu yeewoo laajte ndax bëri ba jeex na am ndax kurpeñ ba moo diis te am doole Mamadi Ndiaye moom kii di Moussa Ndoye moo ko maqaloo poussière kon ñoom ñaar seen final jàpp nañ ko ci njeexitalu weer bi ci claf bu Gaston tëgg san Gueye jàng naa ci yéene kaay Adama Diouf Malal waxul ne dóor baa métti de nee na ay xon la parce que dóor ba daanaka pes la rek mu nelaw waaja daa meloon ni ku yëg ci garab ak a wàcc moom daal fa mu ko jiiñ doonte nee na mu ngi félicité adversaire am ci xar fa foofa yi ñaari yi moom Assane xam nga footballkat bu ratee pelanti mu ne godaas la mhm. chauffeur bu ratee virage ne frein la mbërit bu ñu ko dóoree ko paj mu ne xonjami la jërëjëf Malal RFM gëstu bés bi. gëstu bi ci wàllu caada ak nelawu soxna Jacqueline Scott Lemoine faatu na démb mook borom këram nag euh, Lucien fekki na ko kon atum 1966 la ñu bawoo woon Haïti sànc si Sénégal waaye gàcce ngalaama ñoom askan wi amal na leen njukkal gu wér jàngatu de Dethié Diop. li ñu wone ñi yëngu ci wàllu caada xam nañ ko ndax jamono ji ñu ngi jooy Jacqueline Sénégal dana xel di fàttaliku Lucien ak Jacqueline ndax jóge Haïti fi ñu cosaanoo ñëw dëkk Sénégal Dante ngir mën kaa def kon nag nañu delloo Jacqueline ak Lucien li ñu moom Sénégal moom mujjee doon seeni réew lépp li ko waral caaday nit ku ñuul at gi ñu ñëwee toog fii ci Sénégal di firnde lu bëri ndax day wone seeni ngëm-ngëm mu nekkoon atub 1966 jamonoy festival mondial des arts nègres bu njëkk bi boobu ba léegi ñu ngi dugal seeni loxo ngir jëmale kanam caaday nit ku ñuul te niñ ko defee ñëpp rafetlu ko ñoom saasu ne dañ doon wane ni nit ku ñuul lañ dañ doon wane ne Afrique la développement culture au Sénégal ci wàll woowu ci anam yu ne lañ ko daan defee jaarale ko ci comédie ci théâtre conte pecc cinéma ak ci littérature ak itam ci télévision ndaw yi léegi ñu ngi leen di nettali émission boobee nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci télévision nationale mu di la voix des poètes mën nañoo tënk ni rek Lucien ak Jacqueline seen dund yëpp dañ ko jegleeloon der gu ñuul Sénégal nag moo war a fay naar si xorom si te ci wàllu woowu war nañ leen defal njukkeel gu rëy gi nga xamante ne mérito nañ ko ñoom ñoo ñooñee nga xamante ne dañoo dellusiwaat ci suuf si nga xamante ne fa la seen maam yi cosaanoo woon mujjee sax tëdd fi te bu boobaa ñëpp war nañ koo xam ndax ngëm gi nga xamante ne ab haïtien wone ni ci der gu ñuul la bokk loole loolee waruñ koo rañse ci tiroir yi bu boobaa lu ñaaw lay doon ci wàllu caada kon jamono ji nag lenn cote la ñu war a def moo di def lépp ba Jacqueline saa su ne sénégalais yi di leen fàttaliku autorités yi ñoo ci war a xalaat bu baax ñëpp soññi nañ leen te ci seeni tontu la ñu mën a xàmmee ne ban gëdd la gouvernement bu Sénégal jox Lucien ak Jacqueline ni ñuy xaarandi loolu benn baat kot lañ leen mën a jégleel baat bi daanaka gàtt na waaye lépp la ëmb mu di jaajëf couple Lemoine ndax lépp li nga xamante ne def ngeen ko ngir seeni réew Sénégal Georges Déthié Diop muy hommage bu mu doon rendre kon euh, kii di euh, Jacqueline euh, Lemoine mi nelaw démb at ak lu tegal gannaaw nelaw lycéen borom këram 1967 léegi ñu gi Sénégal ñu yegg seeg yéen ci wàllu njàng mi en classe ak Alaaji Njogu Jeen COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. dal leen jàmm ñuy jeexal tey suñu gëstu bi ñeel lamb ji ci école bi gannaaw ministre éducation Kalidou Diallo ak ancien roi des arènes Manga de président bu CNG àdduna ci mbir moomu docteur Alioune Sarr. àndul benn yoon eh, ci élèves yi bàyyi jàng pour doon mbër. bëre sport la mais warul tax nit bàyyi jàng école am warul nit bàyyi jàng métier kon nag nag xale yi def ne sport la comme yeneen yi mais war nañ ko mun a defar taaral ko ba xale bi. mun a def sportam mais du tere mu mun a dem jàngi école am du tere mu dem jàngi métier am. njiitu CNG yokk si ne mbër yi dañ leen war a wutal feneen fu ñuy entraîner fu dul école yi ndaxte dañu tax ba xale yi du ñu xamati lu ñuy jàng docteur Alioune Sarr. ngoon gu jot école yi mbër yi am tur. nekk ci biir cours de récréation école yi dama yaakaar ne loolu mën na dem ba nëxal xel yi xale yiy jàng ci école yi. E, mbër mu am tur ne par exemple dafa war a entraîner ci école sàngam boori 3 heures 4 heures surtout rawatina école tout tànk yi na la wóor na ñaari waxtu yi jiitu xel yi xale yi dootul nekk ci li maître bi wax ci li waa ji war a ñëw ci lay nekk. ci wàllam njiitu département sociologie bu université Cheikh Anta Diop Souleymane Gomis gis ni lamb ji dafa yàq léegi jàng mi. école dafa naroon jàngale xale yi d'abord ñu xam. ñan ñooy ay par exemple ay Cheikh Anta Diop ñan ñooy ay Senghor Birago Diop des auteurs comme Molière ñu xam leen mais tey élèves yi koo laajte xamuñu ñooñu ñu ñu gën a xam mooy ñi mbër yi boobu damay ne école manqué na vocation c'est-à-dire lu mu nar a jàngale defatu ko dafa naroon transmettre connaissance yi ak savoir mais dafa naroon yar nit ñi tamit ñu bañ a jiite lamb ji ci xam nemeeku bi xam-xam ci wàllu nemmeeku bi ñuy nemmeeku ji tey daara ji di école nationale de formation en économie familiale et sociale NFEFS di tàggat cadre moyen yiy yëngu ci wàllu économie familiale di maanaam ñiy liggéey centre technique yi ni jagleel xale jigéen ñi soxna Naata Mbaye. école nationale bi formé ci wàllum économie familiale et sociale ñu ngi ko sabab nag ci atub 1991 ginnaaw kon bañ booleeg école normale d' enseignement technique féminin ak centre national économie familiale ak rurale moom nag mi ngi bokk ci ministère bi ñu dénk wàllum enseignement technique ak formation professionnelle Seynabou Diagne moom mooy directrice su NFEF. E dañu fiy jàngale les formateurs yi les METP maîtres yii di jàngale ci centre d'enseignement technique féminin yi nekk ci gox-goxaan yépp ci biir Sénégal ak euh, moniteurs yi nga xamante ne ñoom ce sont des agents de développement yuy dimbali population yi pour ñu mun a suqaliku ba mun a euh, jariñoo li leen wër. ci mel ni wàllum solu waaye tamit wàllum restauration école bi dafay def ay formation di ko alterner. bu nekkee école mu nekk entreprise mu nekk école mu nekk entreprise wala ñu xaar ba mu jàng ba yeggal muy door a dem defi ji stage. bi stage yi ak njàng bi ñooy ànd. ginnaaw ay jafe-jafe ci wàllum jumtukaay beneen bi mooy wàllum espace. place bi dafa xaw a xat parce que genn wàllu terrain école bi la ñu tabax des na beneen genn wàll bi ñu war a tabax. bu ñu fexee nag ba daal di indi saafara kon ci seenu jafe-jafe yooyu le dina tax ba école nationale de formation en économie familiale et sociale am ay filières yu bëri ndax kon ñi nga xamante ni ñoom ñoo itteewoo xeetu formation yooyu la ñu fay def ñu mën cee am li ñu bëgg. ci wàllu nataal bi ñu leen di xamale tey ak benn élève silmaxa buy def bac moom Assane Lay nekk ku xarañ lool ci njàng mi am na tamit. mbébét yu rëy lool nataalam ak Mouhamed Ali Mouba moom silmaxa la waaye day jàng. normalement man naa ne ah. Assane lay nekk ci classe terminale lycée Malick si mu nekk silmaxa bi mu amee juróom-ñetti at. sentir ne suñu euh, gis-gis mu ngi wàññeeku euh, bi nga xamee ne mu ngi wàññeeku it man waxuma woon dara samay parents bëccëg bi danaan leer guddi gi mu lëndëm bu ma demee doxeek sama camarades yi fu timis jotee moom ma quitté leen dem suñu kër su ma ñëwee doonuma woon ubbi samay kay duma def dara damay reer rek directement. seen classe. ba lycée bi yëpp bi ñëwee seconde ba léegi alhamdulilah yàlla ngi dogal ne la doon def Ousmane Ngom it euh, maa ngi koy defaat lycée maa ngi am des moins de quatorze vraiment ba terminal bi sax moom laa am. wàllu xool moom am na sa ku muy bëgganteel. Thiès moom amul benn discrimination négative bu ñuy def ci non voyant vraiment bu yàlla dogalee lépp moom li may wut ma am ko moom actuellement moom laa gisagul. tey lu muy ñaan yàlla. man rôle bi ma ci mooy nekk à la disposition de tout le monde ba nga xam ne képp ku am problème dinaa la mën a dimbali sama côté te coté boobu fi mu ko séentoo mooy doon avocat. Mouhamed Ali Mubah jërëjëf kon mbokk yi leen yem ak daje. altine bi di ñëw. ku en classe.